jox naa la sama dal loolu nag taalibi bu ne loolu la jëflante ak ka ko doy te ka ko doy mu koy xoolee jëmmi sëñ tubaa mbaa jëmmi ku tubaa defar kon sëriñ bi wax ne mi ngi nuy fàttali ñun ñëpp ne xam ne tey ak suñu gannaaw bakkan am ñu lenn lu nuy yaakaar wala lu nuy déerloo lu dul yaakaar ji ñu am si sëñ tubaa rek yaakaar sëñ tubaa rek mooy yaakaar ko àddina yaakaar ko àllaaxira fii nu dox di dem day ànd ak suñu sago moom dong la suñu yaakaar wékk si moom waaye waxtu wu ne guddi na mbaa naaj na yaakaar yëpp day delluwaat rek ci sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te képp ku ñu yoor si biir bàmmeel ña nga ña nga amuñu jënn yaakaar duñ sukkandikoo jurul sëñ Tuubaa jàpp ne sëñ Tuubaa rek moo nuy gàttandu te dana nu yóbbu sa àjjana ya nga xam ne moom la ñu yaakaar loolu yi nag ku ci sa yaakaar toll foofu bu la ki nga yaakaar digalee waroo koo yemaleeg dara sedd baatub sëñ Tuubaa bi waxtu wu ko woyee falee ñun taalibe sëñ Tuubaa yi mooy defatun dara Tuubaa mën na noo dellu fa nu bàyyi koo woon dëkk bii nag bi ko sëñ Tuubaa di fàggu booba dara ñëw fi woon ab àll la woon bu ne dadd ay garab ak rab yi àll rekk na fi sëriñ Tuubaa jaayante ko boromam ñu jaay ko ko njëg gu mat sëkk muy dëddu gi mu dëddu àdduna li des ci ak dundam nattu yi nga doon teg te benn bu ñëw fàttaloo ko bañ ko tegoon démb solul ko ak njabootam solul ko ay bokkam solul ko li mu gën a bëgg te lépp jaayante googu li ko war waraloon mooy tuubaa gii rek mooy pàkku Touba bii rek la soxla mu jaayante ko suñu borom ba suñu borom teg ko ci loxoom mu liggéeyal fi suñu borom rëdd fi kaabaam guré gii nga xam ne gannaaw bi nu ko gisatut foofu rek la dem buñ ko soxlaa dabu mu nekk fii ci lu matu téeméeri mètre ak nangam ci diggante ak fii nu toog nu ñëpp ñu jàng loolu xam ko ñu tàbbi si dëkk bii ba noppi jàpp ni dañ fee war a dëkkee noo xam ne nii suñu coobare lay doon wala loolu neex déedéet loolu ak njuumte la li ñu fi war a dëkkee mooy topp ndigali si waaye gàcce gu rëy la ñu taxaw fii si biir marché bii nekk si kër xolub Touba ñu ni sëñ Mountakha li mu fi diglee ña fa nekk lànk na ne duñ ko def gàcce googu murit bu ne war na koo daw te képp ku ko teg sëñ Touba ëllëg yëmal xiyam doo ko gis te danga ko layoo ak moom gàcce googu buñ ko teg sëñ Touba mu ko sedd na ñun ñu jaay teg sëñ Touba li sëñ Mountakha bëgg nañ ko ko defal te xam ne buñ ko xamee ak buñ ko xamut si la sunu njëriñ àddina ak sunu njëriñ àllaaxira nekk nanu góorgóorlu nanu góorgóorlu bu baax nanu góorgóorlu bu baax fonkal sëñ Tuubaa digalam bi fonkal Cheikh Mountakha baatam bi si la suñ njëriñu àddina ak àllaaxira nekk kon nañ doolee góorgóorlu baax a baax nañ doolee góorgóorlu te nangul sëriñ bi nañ doolee góorgóorlu te nangul sëriñ bi baatam bi nañ doolee góorgóorlu te nangul sëriñ bi ndigalam yi Touba li mu wuteeg dëkk yi si àddina yëpp mooy dañ ne ña fa nekk ndigal rek la ñuy benn baat rekk la ñuy wéyee loolu na kenn war koo xañ sëñ Touba yàlla bu si yàlla boole si ña ko koy xañ kon nañu góorgóorlu lu baax laabire googu la sëñ bi waxoon lu laabire ko yéen ñi nekk si bërëb bii te di fi daan seen doole di fi ñaq di fi sakku addiya ak ak njël te xam ne ay gor yu set wecc ngeen waaye nag la sëriñ Mountakha wax rek nee na li leen sakku si yéen may leen ko ko mu faggul leen lu ko gën loolee nag bu ngeen ko déggee wallaay seeni xel war naa dal bu baax a baax kon li sëñ Mountakha bëgg na ngeen ko ko may ngir li mu leen faggul muy lëggën si yéen loolu ngeen mën saa jot ñi ngi sant di gërëm si turu sëriñ Amdi Fall mu sëñ Moodu Mbend di jéggalu ñëpp di tubal ñëpp di woo ñëpp suñu ànd si baatub sëñ Tuubaa bii te waggar ko te fank ko te xam ne si la sunu njëriñ nekk àddina ak àllaaxira ñi ngi sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Touba nag Serigne Ba ngi sund na waaw yéen kay da ngeen seen situation bi ngeen di compliqué rek. ah mais dina rek la jafe-jafe nag sëñ bi ne leen ay caaxaan jàpp la rek juróolu leen dara. fii kenn moo tax ne ngay jël micro bële moo gën a Sèye